dégg nga bànneex yi ak bëgg-bëgg yeeg mer ak yu demoon fu mu daje ci yow loolu bu dee ab système système boobu tudde tuddee nafs nga xam ne mooy liy doxal jëmm ji moom kooku ne dafa am wet gu dëppoog li ñuy wax ruux wet googee nag fa mu loolu la ñu tuddee xol ñoom <laughs> léegi dañoo wax ne malaayika bi ñoom ci wetu ruux ga la lay dikkee di sotti sa xel waaye dégg nga euh, seytaane si xarin bi nga xam ne moom mooy mooy seytaane moom ci wetu bakkan gi la lay dikk di la jéem a suub ci bànneex yi nii léegi ruux ga jaamu yàlla yi ngay def leer googu day dem ci ruux ga ruux gi nag leer googu day sotti ko ci xol bi ñëw ci bakkan bi ak jëmm ji loolu mooy jaamu yàlla yi nga def dem ba dem ba feeñ ci sa ci sa jëmm jaamu yàlla yi nag bu baree ak leer googu leeru googu leeru jaamu yàlla leeru suñu borom googu bu bare mooy tax bànneex yi woyof ci yow nga xam ne tey même mën nga koo bëgg nii waaye waaye waaye day woyof ci yow daal ci misaal am na ko am na nit ñoo xam ni dañuy bëgg seetaan télé ak ay film nga xam daanaka jaral na leen moom moom guddi gépp moom waxtu ne ñu nekk ci waaye am na ñoo xam ne film yi dañ leen a soof ne boo dee jaamu yàlla tuuti boo yàggee si film yi mën na laa soof yaa ngi dégg film yi xam nga day dem ba soxla noonu la mboolem yi nga xam ne bëgg nga ko nii mu jaral la yu bare bare day dem ba soxla fi dana dem ba soxla loolu mooy ruuga ma ngay dund di gën a am nga leer te loolu jaamu yàlla yi moo ko yokk ñoom noonu lañ koy misaal day dem nag ba bakkan bii nii mën naa dee bakkan bi mooy lu yor jëmm ji rek <laughs> waaw loolu loolu lañ jublu bu ko dee nag bakkan boobu ba tey bakkan bi mooy maanaam ci la yi dox ci jëmm yëpp ci dañuy wax ne ci lay dox xel mi xel mu xel moom bokkut ak yuur gi yuur gi mooy bërëb bi nga xam ne fi la xel mi eh, jëfe rek dégg nga li muy jëf waaye ruux ga itam dañuy wax ne ñoom ne ba ruux gi leer googu ñëw ba sar ba ba dugg ci ba ba ba ba ba ba fenkat ci xel mi tajal liyaat yi mu def bu ko defee ci xel mi day mujj xel moomu xel ma nga amoon ne xel mu matériel mi da nga koy da dafay jóge beneen xel dafay ñëw moo xam ne xel bu ruux lay doon maanaam xuruux gi daal mën naa dem ba dëkk jëmm bu wér-wér dàq bakkan ak bànneex yii nii dëkk jëmm ji bu wér loolu waaw loolu la ñu tuddee fatfa moom ci moto sawi fay ndax ruux dafa am ay capacité boobu mooy moom day mën a gis lu bare bare bare day mën a xam lu bare bare bare ndax yàgg na mu ko waxoon moom alastu bi rabbikum booba dara xewagul yàlla dajale ruux yëpp alastu bi rabbikum ñu ne ko balaa maanaam kon yàgg na fi moom te dafa bari xam-xam yaa ngi dégg te mën naa gis it li ñëwagut ni mën a gisee li ñëw li weesu maanaam ruux daanaka temps ak ëllëg ak yi noonu amul ci moom moom ni muy gisee tey noonu lay gisee suba <laughs> yaa ngi dégg yooyu daal lu xorom la yoxal te li jënd yàlla ñu defal taw feex nu dem ba man ba mën cee xam dara waaye nit yàlla yi noonu lañ koy xaw a misaal waaye li ci xorom mooy da nga koy liir fii ëllëg nga dem ci keneen nitu yàlla mu wax la ca comme la ma la njëkkoon wax ne la lépp benn la bakkan bi mooy ruux di waaye day tudd nit yi léegi nag ci alxuraan yàlla kullu nafsin daa'iqatul mawt bakkan bi la wax ne mooy dee waaye waxut ruux gi benn moom tuddul ne day dee ruux moom li moom moom du dee moom xam nga dañ koy seppee day du day génn ci jëmm ji rek parce ba nit ki bu faatu bokk ruux gi day génn rek ne yi ñuy def yëpp suul beeg yëpp da koy fekk day gis gaa yi taxaw di ko sanga ak ñi julleeg ñii ñëw ñii jooy ak ñii jooyut ak ñii mer ak ci dee ak ñoo xam nañ cee bëgg ñëpp leen di seen xam kooku mu déwul maanaam waaye nag bu génnee ci ruug gi dootu mënte lañ bu génnee ci jëmm ji dootu mënte jëflante ak adduna bii nii adduna bii ngir mën mën a jëflante moom faaw mu dëkkee jëmm ji nii ñoom loolu la ñuy wax ci yooyu <laughs> yàlla defal taw